Eh, jërëjëf eh, Cheikh jërëjëf eh, loolu rek mooy li nga xamante ni actuellement loolu la ñuy rek woy di waxandi gis ngeen ba tey fii ji Mbour la coalition yi président ñoom ñu ngi rek nekk di def liggéey bu am solo ci par rapport ak en tout cas la campagne électorale depuis lors nag commencé nañ ko foofalee ca Dakar actuellement nag ñu ngi fi nga xamante rek moom mooy Mbour ngir rek wéy di voilà gis ngeen nekk noonu moom moo en tout cas Nous Balikunda. Nous les patriotes. Nous des patriotes engagés et dévoués. Nous ne mettons pas. Jagana Euh, soxal euh, moment biñ toll nii alors actuellement nag euh, ñu jëlaat yenn ci ay réaction yoo xamante ni rek dinañ ko amandi daañu xool ñu ñu essayé mais alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf jaajëfal euh, lan la. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax baax parce que fii Mbour moom mu ne xam ne ay bañkat fi nekk xam ne ay ñu bëgg réew mi fi nekk ñu bëgg Ousmane Sonko moo fi nekk moo tax kay muy wooy day dañuy sant yàlla bu baax baax ci wuy si bi nga xam ne la gars wuy si mais li dafa li dafa extraordinaire depuis booba léegi on a l'impression que ni benn candidat rek muy Diomaye waaw moom rek Euh, jërëjëf mu ngi noonu euh, ba tey ñu ñu àndandi ak euh, li nga xamante ni rek moom mooy Euh, boobale caravane ci ni ngeen ko gisee gis ngeen maître Tall moom moo nekk noonu ànd ak euh, Cheikh Bara Ndiaye ànd aussi nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Mara gis ngeen ba tey ñu war rek daal di démarrer li nga xamante ni moom mooy caravane bi ginnaaw rek bi ñu ñëwee ci permanence bu maître Tall ñu fekk fi nag en tout cas ay centaine de ñu toogoon rek di. teeru ki nga ni nag moom mooy euh, euh, en tout cas la coalition Diomaye président bu nekkoon euh, Dakar initié par Cheikh Bara Ndiaye ak Serigne Mara ba tey toujours lu ñuy woy rek di gisandi en tout cas la jeunesse mbouroise ñoom ba léegi ñu ngi rek di jubilé di ànd ak. li nga xamante ne que moom moo di euh, boobale caravane fas rek daan di ànd ak ñun li nga xamante ni euh, euh, voilà gis ngeen ba tey li ñuy wéy rek di gisandi dafay wéy di par rapport ak li nga xamante ni rek moom mooy boobale coalition mu nekk nag benn coalition boo xamante ni liñ ci mën a jàngat rek moom mooy. Euh, ñu ngi euh, présent sur le terrain depuis lors euh, boobu ba léegi nag lu ñuy jàngat rek dafay wéy di ñëwaat ba léegi ci li nga xamante ni rek moom mooy engagement ak détermination bi nga xamante ni mën nañ ko rek daal di nemmeeku voilà gis nañ ba tey aussi tamit ñuy distribuer ay spécimens loolu. àdduna loo muñ mu jeex. da nga jàpp ne affaire yi jeex na ba pare. yàgg naa barke Borom Tuubaa yàgg naa jawrin dëgg mooy njëkk mooy mujj sëñ bi ñun changement lañ bëgg si boppam li fi nekkoon 1900 ba léegi moom lañ bëgg mu barke moo ngi change barke Seydina Mohamed xoolal ñun fii Sénégal Kaolack dëkk da wate ji dañoo war wate ji mos mosu ñu wate barke alquran Seydina Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla guddal fan si barke alquran si barke Sénégal mu ngeen ñaanal jërëjëf euh, da ngeen lu Euh, changement la ñu bëgg te incha allah dina dina dina rek euh, daal di am euh, changement dina am li fi nekkoon depuis 1960 ba léegi dañoo bëgg mu daal di jeex est-ce que aussi tamit loolu lu ñu mën a xaarandi éventuellement waaw. Euh, laay waaw. bon dafa mel ni euh, la population de Mouride jug nañ Mor euh, c'est du jamais vu li nga xam ne mën naa ne actuellement ngeen koy am en exclusivité fi nga xam ne moo a ci diwaanu Feeling Dakar TV maître Abdoulaye Tall ak ki nga xam ne moo di Serigne Mara Niass actuellement ñu ngi fi nga xam ne mën naa a moo di rond-point bu Mbour la population bu Mouride jug nañu Diomaye mooy Sonko. Ousmane mooy Diomaye partagez leen live bi donc euh, partagez leen live bi dara ci am solo fii ci diwaanu Mbour euh, caravane président Diomaye Faye ak xam ne moo di président Ousmane Sonko ngeen koy ma en exclusivité euh, fi nga xam ne moo ci diwaanu Feeling Dakar TV chaîne leader chaîne des grands événements sa Dakar Mor ma bàyyi la nga yëgale voilà laay comme ni nga ko waxee rek ba tey dafay wéy di ñëwaat par rapport ak mobilisation bu mucc ayib bi nga xamante ni rek daal dinañ koy gis fii ci Mbour mu nekk ab mobilisation boo xamante ni rek man naa ne IPEX euh, euh, en tout cas IPEX caravane la ñu nemmeeku tey parce que tamit la coalition Diomaye président bi nga xam te ni rek euh, bi ñu doon def euh, ak euh, Serigne Mara Niass ak Serigne Bara Ndiaye dañoo ñëw fekk si waat beneen caravane bu Maître Tall Maître Tall nag actuellement dafa nekk li nga xam te rek moom mooy FFM parce que ñoom li ñu notee moom mooy depuis lors Ousmane Sonko dafa yàgg rek di perte li nga xamante ni nag moom mooy la ville de Euh, cette fois ci nag ñu bëgg Ousmane Sonko daal di rek am ndam ba tax na Maître Tall daal di leen euh, invité ñu ñëw rek daal di def benn euh, pexe caravane ngir rek daal di dem en tout cas dans les coins et recoins de la ville savante ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy askan bi savante aussi tamit ak ñi nga xamante ni rek en tout cas ñoom ñooy population bi nga xamante ni nekk nañ fi bu ko defee ñu wéy rek di bu ko defee rek. bu ko rek ñu wëy di ànd ak yéen ba tey ci li nga xamante moom mooy euh, boobale euh, coalition mu nekk nag ab euh, coalition boo xamante ni dañoo constitué wu en tout cas en EPEX caravane depuis lors àndandoo doon benn def li nga xamante ni moom mooy benn mobilisation bu mucc ayib daal di rek def gis nañu aussi tamit moom maître balaa coalition bii di ñoom Cheikh Bara di ñëw gis nañ maître Tall mu daal rek euh, daal euh, defan benn mobilisation euh, bu mucc ayib voilà yàq wala am na benn incident bu am mais éventuellement mën nañ rek bay di continuer ak lu bu ko defee. voilà ba tey am na benn incident bu am. incident bu am am na benn incident bu am na benn am. na benn incident bu Euh, dafay ñëwaat par rapport ak les influenceurs ak en tout cas euh, la presse mais daal dañuy wéy rek euh, di ñëwaat par rapport ak. waaw maanaam maanaam logo bii nii mooy ñi initié caravane bi booy def live da nga ko ci teg ku ko ci mënul teg da ngay wàcc.